doo ko nangu waaw paccax loolu na solo quoi daaw bi ma la bëggee xam nga di la wax nag nga bàyyi sànni xeet góor ñi parce que góor ñi ñooy seen kilifa dañ leen dee war a ci kaw jox leen la harmonie dafa baax ci góor comme loolu ngay wax góor dañoo bëri tiitër des fois day baax am harmonie mun waxtaan comme làkk France yooyu ngeen di wax loolu moom mu jël ko nga tegee ko na léegi góor risque bu mu jël bay wa yaakaar naa ni amuñu ñu mën a osé jàkkaarloog jigéen déggoo tubaab ngay làkkanteeg moom ay tubaab. mais am na ñu koy def mais bu la ko wanee dégg foo jëm. mais am na ñu koy def. mais ñooñu dañoo gëmul seen am na ñoo xamante ne ñun di làkk tubaab te jànguñu ko. gëmuñu seen bopp. Ah,